17 jours muy wax ne nag Ousmane Sonko dafa bañ li nga xamné ne moo di soigné ca hôpital ba mu depuis 4 jours mu ngi wax ne depuis bañu arrêté ki nga xamné ne di Ousmane Sonko depuis le vendredi 28 juillet 2023 mom nak ca la tambali won li di app grève de la faim muy wax ne nag euh, prison waruñu ko utiliser comme arme en politique euh, est une arme non conventionnelle qui fausse li nga xam ne le jeu démocratique muy wax ne nag euh, Sonko dañ ko waroon a le 14 août bii ñu génn waaye nag bu ñu ko génnee hôpital Les lu ko mënti dal rek fautu état lay doon ak ki nga xam le président Macky Sall waaye yemu ca wax na ni nag lépp ñëpp ñi nga xamné ay détenus politiques la dañ leen a libérer ndax lolu c'est une exigence sociale parce que nak wax na ne ay innocents rek ñoo remplir li nga xamné modi

tout doux Mtal mingi ngi euh, d'une âge de trentaine d'années mingi nek étudiant en géographie l'observateur mom li mu euh, euh, il a été appréhendé mardi folie les lieux du crime où il a été revenu pour les besoins de la commémoration de deewu étudiant Bidi Bassirou Faye ni di nag les éléments du commissariat yi nga xamné nak nag nañ ci ay tankam ñom nak japp nañ ko en pleine cérémonie euh, ñi ngi rapporté que ni euh, remettre nañ ko sax à la sûreté urbaine du sud ñi nga xamné nak ñoo chargé won de l'enquête sur l'attaque de l'UCAD la même source n'ak ñi ngi wax né nak euh, bañu ñu fuyewee ki nga xamné modi moo kër étudiant bobu noné fekk nañ fa li nga xamné modi moo ba mu soloon waaye li tax ñu gën koo mënoon a identifier rek mooy c'est grâce aux caméras de surveillance yi nga xam ne installé nañ ko ci université ba ak ay alentours kidnapping ñu ñëw nak euh, ci soxna si ñuy wax Mama gannaaw euh, bañ ko bañ euh, lundi ba nañ sax ñu sur tous les réseaux sociaux le site web parce c'était inquiétant parce que ñu c'était une femme enceinte bo elle avait disparu ay gisunu ko mu sax presque à terme mom nak euh, gis nañ ko nekki ni la feeñ mom nak gannaaw mu euh, bañ ko dañ ko hôpital ba maman am 37 ans mom il s'est confié nak euh, enquêteur ya di wax

jigéen ñi nga xam ne ñoo di ravisseurs yi nag ca lañ jëlee doom ja yóbbu ko moom moom Maman Koundoul nag jëkkëram nekk fi woon ab immigré la bu newoon fële nga xam ne moo di l'Espagne euh, ba démb sax la waroon na ñibbisi pour wëri ji ki nga xam ne moo di jabaram waaye nag liñ ci jota jotaat ci information moo di li nga xam ne Maman Koundoul wax na ko euh, policier ya dara nekku ci dëgg c'est une histoire montée de toutes pièces ndax nag li ñu wax ne nañ gisuñu information bi di circuler rek selon que ne ñii di ravisseurs yi dañ leen jàppee fële ca Sangalkam c'est une fausse information euh, jàppuñu kenn euh, li di police defuñu ben arrestation ci affaire lé ki di Maman kundul nak moom moo monté histoire bobu non yëpp de toute pièce mosula ëmb béy wasin et que lepp nak lim ci djublu won moy que jëkkëram may ko li nga xamné ne di divorce dinañ ci revenir at buñ ci gëné am lu ñu gën a leer màggal euh, ñuy ñëwaat ci train bi nga ñi ngi wax le retour des trains gannaaw ba train ya dawul nak euh, mat na niki ni quatre ans euh, ci ren euh, nee nañ le train va reprendre la circulation pour li nga xamné modi magal di màggal Touba di le 4 septembre biñu ñu jëm kii di nak le directeur général des grands trains du Sénégal di Samba Ndiaye mom nak confirmé na nouvelle bobu noné il y a quelques semaines muy wax né nak ce dernier ne gannaaw ba nga xamné suñu natango wuus Vox Populi ñoko reprendre mi ngi informé nak né ñetti train seront mis en circulation euh, ci axe Thiès euh, Touba ba waaye nag bu ci nekk dina transporter lu tollu 240 passagers te du am benn surcharge ndax duñu ko tolérer sax. Qui dit euh, Malik Samb dit le directeur de l'exploitation Mon tamit ba mou mu reveniraat ci loolu rek muy wax ne nag euh, am na ay tests koy def euh, ci colonne non nous di nekk ay voyage de test ñoom nak dinañ débuter nekki jeudi te dinañ durer lu 4 quatre jours entre Lidi di Thiès et Etouba pour rek vérifier li nga xam ne moo ak matériel bi pour faire en sorte que li nga xam ne population bi euh, sentiru bien ci bir train yoy pour dem beeg dikki daal bañ am ben lëj-lëj. dernier minute euh, gannaaw nak bi nga xamé né maître Clédor Ly génn na démb di wax né nak Ousmane Sonko buñ ñu ko génneewul fele mu né gannaaw ba mu défé li nga xamné modi grève de la faim durant depuis bañ ko jappé vendredi 28 juillet ba tey mu nekk 17 jours mu doon wax né nak situation ki di Ousmane Sonko dafa doon aggravé wu li ñu li ñu xam xamal nag Ousmane Sonko est admis en réanimation ndax euh, dans ba entamé grève de la femme depuis plus de deux semaines nous euh, avons admis en réanimation selon ki nga le chargé de communication euh, de son ex-parti PASTEF dit El Malik Ndiaye nous portons à la connaissance de l'opinion nationale ak internationale que le président Ousmane Sonko est admis au service de réanimation de nga l'hôpital principal de Dakar suite ak malaise am na ko niki ni démb ci guddi moom daal loolu bind ci poste bi mu dugal niki ni tey jeudi embarcation ba nga xamné nak mom ma nga jóge feulé ca Fass boy euh, defoon plus de 60 morts ñom nak ñi ngi wax né plus de 60 migrants euh, présumés avoir perdu li nga xamné modi la vie à bord d'une pirogue bo xamné nak ma nga déparé ci les côtes sénégalaises plus précisément feulé ca Fass boy début juillet ñom nak dañ ko fekk au large de li nga xamné modi Cap Vert lool dal lañu indiquer indiqué selon l'Organisation internationale pour les migrations dit euh, l'OIM. Nous ñuy xamal que le nombre de personnes décédées est estimé à 63, celui des survivants étant de 38, dont 4 euh, euh, de 12 à 16 ans dit l'AFP Moudi, une porte-parole de l'OIM Safa Msili. Nous wax que l'embarcation a été repérée dans l'Atlantique à environ 150 nautiques Moudi 200 277 kilomètres euh, l'île de l'île Cap-Verdienne de Sal par un navire de pêche espagnol mon moment alerté les autorités cap-verdiennes euh, la police de l'archipel distant d'environ 600 km des côtes sénégalaises Nous avons en dehors des 38 rescapés euh, secours que que li trouvé 7 personnes le porte-parole reporté selon les témoignages des rescapés ñi nga dit le ministre des affaires étrangères euh, cité l'embarcation qui ngi à l'ouest sur la côte sénégalaise le 10 juillet avec l'autologue 101 passagers à son bord. l'épidémie de chikungunya s'est proposée qui euh, dit docteur Babacar Mbaye il a cas à Dakar gannaaw ba nga épidémie bobu nak ma nga nga xamné Modi, euh, euh, elle était à l'épicentre avec la découverte de plus de 60 cas euh, depuis l'apparition nak ba mu depuis le 1er août dernier qui du docteur Babacar Mbaye mom mi ngi annoncé ni amna ay cas dans d'autres régions notamment fidi Dakar il y a des cas de chungungaya même à Dakar peut-être que l'ampleur n'est pas grave mi ngi signaler Sall Iliana à Sokone euh, fële ca Fatick à Pékin mais tamit euh, c'est à Kédougou euh, le ëppee épidémie boobu noonu moom. di Babacar Mbaye nag le directeur régional de la santé Mom loolu la xamle mi ngi wax à Kédougou lii di feebar ba nag jël na fa ampleur moo tax it jël nañ di les premières mesures ont été prises et que am a sax laboratoire de l'Institut Pasteur bu jugee di Dakar dem installé wu actuellement foofu ca Kédougou pour faciliter la libération de détention ou euh, cas avec des diagnostics assez rapide euh, apportée par les médecins mais aussi qu'il y a des des équipes euh, d'anthropologues qui communiquent euh, avec li nga xamné population pour bañ le titre parce que n'y il y a pas de quoi avoir peur mais la lañ jël li nga xamné parce que la maladie n'est pas mortelle tu limu précisé. préciser frappe li l'hôpital principal ñom nak ils essayent de maintenir qui dit Hannibal Jim éveillé pour ne pas qu'il sombre dans le coma les médecins de service de réanimation de l'hôpital principal de Dakar nous ont d'éveiller ki Jim Hannibal pour mu bañ dans le coma L'idée frappe nous continuer dénoncer l'emprisonnement arbitraire de Mohamed Samba Jim. Nous avons ko surnom Hannibal exiger libération immédiate avant que l'irréparable ne se produise euh, lol daal lañ rapporté ci seen communiqué bobu waye yemuñu ci ndax ñi ngi exiger li di libération immédiable euh, mu valable pour kii di Fadilou Keita Ousmane Sarr Diop Taïf Pape Abdoulaye euh, Touré ak ki nga xamné modi le chef de l'opposition di Ousmane Sonko ndax ñom ñëpp dañoo nek en grève de la faim depuis deux semaines pour dénoncer nak li nga xamné modi moo emprisonnement arbitraire mais également frappe, ni la libération de plus de 1062 détenus politiques euh, par King Hamne maudit le président Macky présidentielle 2024 guñu deugmal en février qui di Mohamed Boun Abdallah Dionne mom nak mi ngi promettre li nga xamné modi ab victoire éclatante jëmale ko ci wa Benno Bokk Yaakaar waye mom nak li mu xamle nag di di ab message bo xamné mi ngi ko don adressé à la coalition Benno Bokk Yaakaar mom l'ancien premier ministre mom limu muy laaj ñaan nak modi di képp koo xam Benno Bokk Yaakaar nga bokk nañu ànd àndandoo bolo ndax nak limu xamle moy mbolo moy doole te ci lañu mën lepp ndax buñu ñu rek mën indi lo xamne dal euh, ay rek rek lay doon ci biir coalition bobu non mi ngi wax ne moom il y a un mois le confirmer euh, candidature bu Benno Bokk yaaka ak ki di président Moustapha Niass comme mom nak le président Macky Sall désigné woon euh, pour mu candidat dans cette perspective j'ai eu de nombreux échanges avec la quasi totalité euh, de candidats ma conviction est que c'est un bloc soudé autour du président Macky Sall de son parti et de Benno que la victoire de 2024 sera assurée muy wax ne fait un euh, bloc ñoom éviter li clivage entre candidats à la candidature de Benno Bokoyaka

en février 2024 Léo Nying de Pastef mom nak euh, jappé nañ ko fé di aéroport l'AIBD lañ koy topé nak nekul dara offense au chef de l'État ñu ñi xamné nak euh, il est reproché à Kidi Monsieur des publications assimilables à une offense au chef de l'État sur ses comptes sociaux lol dal la ñu préciser euh, ci source ba moy ajouter que né Léo Nying est également poursuivi pour des actes de manœuvre et de nature à jeter le discrédit sur les institutions. Nous avons vu les États-Unis gannaaw ba ñu xamee incendie bu amone feulé ci l'île de Maui di Hawaï defone fa nak ay ravages liñ ci wax nak le bilan humain dépasse plus de 100 morts parce que nak euh, le bilan est, terrible parce que l'incendie a quasiment rasé li nga xamné une ville sur l'île de Maui dépassant les 100 morts Nous nak annoncé que le gouverneur de l'archipel américain d'Hawaï de Josh Green Mingi sans envie, 101 ont été perdus. Euh, Mingi aussi lors d'une adresse télévisée en précisant que les secours euh, ont été ñu un peu plus d'un quart de la zone de recherche qu'ils doivent couvrir ce feu est le feu le plus meurtrier depuis plus d'un siècle Feu les États-Unis gannaaw y a 101 morts les disparitions moom mënuñu compter parce que ñi ngi tollu ci plus de 12 000 euh, habitants euh, compte désormais li nga et et les autorités ont déjà averti que le bilan humain pourrait être considérablement euh, ci jours yi ñu jëm mën nañ gëna am ay kaaw li nga xam modi ay décès ndax disparition yi bëri na waaye ñi ngi wax tamit euh, les proches de ñi nga xam modi les disparus ñu leen di encourager à faire des tests ADN pour mën leen faciliter li nga xam modi l'identification des cadavres qui sont souvent méconnaissables Mali Burkina ak fële nga Niger lii di compagnie aérienne bi Air France nous nag euh, prolongé nañ li nga la suspension de ses vols gannaaw nag ba depuis le 7 août euh, dernier Nous dañoo cessé li nga toute liaison euh, aérienne avec ces pays mom daal la ñu indiqué ci ab communiqué bu ñu jàllale woon la PS l'APS gannaaw nak bi nga xamee ne Air France jëloon nañ décision boobu noonu ñi nga xam ne Mali ñoom tamit vendredi 11 août lañ jëloon nak l' civile malienne ci lañ ko supprimé wee euh, l' autorisation bi nga lañ accordé woon ñi nga xam ne Air France muy exercer des vols entre Paris et Bamako. waaye nag yemu ca ndax la compagnie aérienne ñoom ils ont décidé de prolonger jusqu'au 31 août inclus la suspension de ces vols à destination de fi nga Mali Burkina Faso et du Niger ñu ñuy xamal Air France effectue sept vols par semaine à destination de Bamako 5 vols à destination de li nga Ouagadougou et quatre vols hebdomadaires de ko fa Modi nga Niamey ñu koy jeexalee ak fële ca Fass Boye li nga xam jeunes saccagé des édifices euh, publics la ñuy reprocher à l'État que Modi selon correspondant pour RFM Balen leen modi dit les jeunes en veulent aux autorités ndax liñu xamal liñ di reprocher rek d'avoir tardé dans l'organisation des recherches après la disparition depuis le 10 juillet d'une pirogue euh, avec plus d'une centaine de jeunes à bord ñom nak jeunes manifesté nañ euh, fele dans le département de Tiwawan euh, saccagé nañ édifice public nous avons nak li pêcheurs Armée armés de pierres et des gourdins nous envahir le, le, le service de peste euh, saccage tout sur leur passage le bureau de la le bureau de la délégation de l'entrepreneuriat rapide euh, d'IDER est le site de transformation euh, de produits halieutiques récemment inauguré euh, foofu tamit nag visité nañ ko ba jot ko saccagé lii que les gendarmes de Mboro et de Tiawon nous nag intervenir auprès d'intenses accrochages pour calmer les jeunes dans leurs ardeurs chers amis internautes li mo fi jotoon ruusandi ci ay xibar ñu leen di jox dig d'ici demain inchallah à la même heure D'ici là, restez scotchés à la suite de nos programmes, là où on vous informe juste et vrai. Portez-vous bien.